Macky la dama ko seetaan ci feewu koor gi mu ne omra nga dem màkk man man man man dama yi lan lay wuti màkka Macky Sall lan lay wuti màkka Macky Sall bu fekkee ne jaamu yàlla la soxla yàlla jox na ko lu mu jaamoo yàlla gis nga ak aj benn yoon la doon farata ci dund nit ki benn yoon lépp lu ci def nekkatul farata léegi nag mu jël suñu avion def ci def ci dégg suñu suñu suñu suñu milliard yenn ko yóbbu màkka dem mu ne dafay dem pour defi umra fekk boobu bu fekkee jaamu yàlla rek la bëgg la bëgg réew maa ngi fees dell foo xam ne mën na faa jaamoo yàlla léegi bu fekkee ne ñu ngay conseil ci wàllu diine xamuñ loolu nañ ko ko wax moom xam ko Macky Sall dem omra du farata ci moom nekkul sax sunna ci moom su bëggee ñu mu jaamu yàlla am na ko mooy lan Sénégal métti na métti koo xamante ne dund bi na ko fexee wàññi xaalis boobu mu foofu noonu na fexee wàññi dund bi doon jàmbur yi nga xam ne leen ci kaso gi ci dégg nga ñu ooree ci biir kaso gi mu métti ñu korotee fa su fekkee ne jaamu yàlla rek moom moo ko tax a jub tam nekk ngir yàlla ci moom pourquoi mënu leen a bàyyi loolu moo ëpp yoon dem umra la dafa ah man loolu ba léegi déggaguma kenn ci média bi moo ma expliqué loolu lan la fa war a wuti su ma waxee yenn naafeq yi nga xam ne ñu ngi ci internet bi taxaw ne ma jullit la d'accord jullit la benn yoon la dem umra ñaata yoon bu xiif yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na nga fexe ba biiram suur moo ëpp junne yoon nga dem naan yaa ngi dem di aji màkk junne aj dégg léegi ñaata nit ñoo xiif ci kaso kaso gi nit ñi lan la ñuy dundee temps normal rek kaso dafa métti rawatina nga boolante ci koor léegi nag mu jël ay millions enu ko dem moom màkk mu ne dafay dem pour defi umra léegi fekk boobu sénégalais yi ñu ngi biir kaso gi di bëgg a dee am ñoo xam ne ñu ngi ci biti di a dee am loolu laa bëgg a xam ñu ko wër dafay mel ni léegi kenn waxu ko dëkk sëriñ si mag si nga xamante ne aussi jox na leen jël conseil yi nga xam ne war nañ ko ko jox duñ ko ko jox ku toog ak moom sa intérêt mooy dëgg gi nga xam ne moom mooy lu am mais Macky Sall place am bu fekkee jaamu yàlla rek la bëgg am na ko yàlla dénk na ko ñoo xam ne mën na cee jaamu yàlla ba wisal dégg nga li ñuy wax naan xaw ma ku sa kër tëggaan ku sa kër di tëgg war a wàll yàlla moom këram dafa tëgg këram dafa tëgg bu fekkee ne lu mu defal yàlla loo xamante ne gën na yàlla pour yaakaar ne bu génnee àdduna ëllëg yàlla dimbale ko wallaahi am na ko mooy ci réew mii ñu nekk nii te soriwu ko mën na cee jaamu yàlla bu baax kon loolu dama bëgg Macky Sall jot ci xam ko wala ñu koy conseil ñu jot ñu xamal ko loolu ne ko Macky Sall bu fekkee umra la bëgg amul place umra dégg nga umra gi mu war a jaamoo yàlla lu ëpp umra am na ko mu ngi fii ci réew mi benn umra mooy farata moom am loo xam ne fi bi defee noonu maa ngi fi dégg fan yi ay hôpital yoo xamante ne nii scanner sax amuñu ay hôpital yoo xam ne amuñu sax scanner am dëkk yoo xamante ne hôpital yu baax sax amuñu ko dégg nit ñi bu ñu am doom suñ mbokk jigéen ñi ci ci lan la ñuy nekk nga yellu ay millions dem ak moom màkka nga ne da ngay jaamu ji yàlla kooku ay tappale la rek ay tappale rek nañ waxante dëgg dégg nga